defe naa ne ferankulay na mënuñu war dem te duñu wax wolof ndax moom ñu ci bari moom lañuy nàmp buñ ko nàmpul te moom la ñuy waxee tey dañu am mbégte mbégte bi ñu am mooy fii ci permanence départementale bu euh, AFP euh, ñu ñëw fii dajoo fi daje fi nag ci suñu président su coordonnateur départemental mu ñu ñëw autorité yi fi ñëw yépp tudd naa seen tur ñi nga xam ne suñu ay góor lañu waaye ak suñu sœur fii ku fi takk ndomba tànk ku fi takkul ndomba tànk képp ku fi am baat ñëw nga tey ci ndaje bi lu tax jigéenu département bi ñoo woote lu tax jigéenu département bi woote mooy rek ñu waxtaan ci suñu biir defuñu meeting de defuñu meeting rencontre la rek pour ñu échanger ci ñaari yëf parce que buñ doon meeting dana demee neneen waaye rencontre la pour ñu échanger gën a renforcer les no nos sœurs nos li ñu fi dégg tey defe naa ne doy na wax leen naka lañuy demee ci nit ñi parce que président dafa nañu nañu def visite de proximité ku meroon ñu def ba mu metti ku xamul woon ñu xamal ko mais loolu dafa laaj ñu waxtaan suñu biir naka la ko ñu nañ koy defee waaye il faut ñu xam candidat bi nga xam ne moom la ñu am mooy kan ak lan la fi def lan la def ci Sénégal ak lan la def ci Thiès lii ñu leen jox tey nii li mu def ci Thiès moo fi nekk defuñu ci Sénégal Thiès moo fi nekk ndax yéen loolu moo leen intéressé donc lii ba tey outil la am na ñeneen ñu fi distribuer yeneen ay support yooyu yëpp bu leen ci xeeb benn na ngeen boole yépp amee ko dem ci nit ñi wax ak ñoom ndax dañu am président boo bu jafe xam nga ni dangay am dara dafa lay yomb doo xam lan la waaye président Macky Sall dama leen di waxal leen mooy président bu ñëpp bëgg. mooy président bi nga xam ne nit ñi dañu cee ñee dans la sous-région et ailleurs ndax nag dafa am ay atribu yu nekk ci moom lan mooy attribut d'abord mooy jàmm nitu jàmm la waaye bi mu jógee ci loolu dafa am dafa fonk nit xam nga fonk nit boo ko dindee koo fonk du la fonk moom nag xale bu ndaw bee nit ki du mu mënti am na ku ko doon wax fii defe naa ne docteur Ndiaye la dafa xam nu muy gérer nit gis nga kooku nag bëgg réewam yéen a réewam am ci jigéen ñi euh, considération yërëm leen ba tax programme bu nekk mu génne ko jigéen kooku nag moo bëgg tey ak li mu def ci Sénégal yépp en sept ans mu def li nga xam ne ñi fi def cinquante ans maanaam li fi jaar ba mat cinquante ans defuñu ko dafa doubler li mu defoon maa ngi xababal di dugg ci ma euh, kii bi nu mu tuddee bilan bi mais damay wax rek globalement pour ngeen xam bu baax ki ngeen am mooy kan bëgg leen nag ba desewul euh, desewul leen dara waaye nag ci xarañam mu teg li ñuy wax PSE PSE mu def ci dëxëñ ci lépp loo xam ne Sénégal mën na ko jariñoo pour mën a nekk un pays émergent waaye ci loolu dafa am loo xam ne war nañ ko ci jàpp mooy la dimension sociale ndax nag dañuy dem ba yàgg sax ñu ni social président dafa bari ba dafa bari waaye dafay won ni mu bëggee askanam kon loolu dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax yaakaar nag ci jigéen ji yaakaar ci jeunesse bi waaye yaakaar aussi ci troisième âge mais jigéen dafa am nu mu bindoo dafa am pësteef jigéen dafa am li ñuy wax pouvoir électoral fii ku falu jigéen a la fal ak jeunesse bi gannaaw yàlla jigéen ñi nag gis takk ñi dem ñoo ëpp ñi fi des dem nañ ba fii kenn mënu fi taxaw parce que foo toog da ngay bëgg am place mais doo ko am ñi ñu ñëw di dem loolu dafa wane rek cofeelu nit ñi cofeelu jigéen ñi ak góor ñi sax ci président de la république ñu war ko nag traduire en vote ñun ñii ñëpp ku ci nekk mën nga voteloo ay centaines de personnes pour ne pas dire des milliers de personnes waaye bu ñu toogee suñu kër yi loolu du mën a am li mu wax nañ ko ko defal ku nekk na nga dugg ci kër ou ci kër yi ñu prochet la bonne parole kenn nit ñi lan la président doon def yéen ñëpp vous êtes en mesure de le faire kon nañu ko def man daal duma sori parce que xam naa ne njóobeen ñi fi mu nekk nii xiif nañu te xewlu yi ñi ngi fi lépp a ngi fi te lépp yéen la ñuy remercier rek ceux qui ont appuyé cette manifestation l'organisation di leen remercier seen présence hein le, le, le DG de la LONASE était là et il a appuyé les femmes il a appuyé à hauteur de 3 millions d'autres ont appuyé les femmes il faut le remercier remercier aussi ceux qui ont appuyé et qui sont dans l'ombre vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm gis nañ taxawaay bi gis nañ jàppoo bi gis nañ góor ñi ni ñu jàppaloo lii rek la ni ñu jàppalee loolu rek la jigéen a góor kenn mënul dem bàyyi sa morom nañu jàppoo góor ñi di xëcc jigéen ñi jigéen ñi di xëcc jigéen ñi bu ñu demee ba foofu defe naa ne que danañ am un pays où il fera le chemin merci à tous merci à toutes merci à chacun ñun nag tey ci Thiès dañ fi am une journée particulière ñun ak waa CNG des courses hippiques waa CNG des courses hippiques ñoo organisé journée bi pour lan pour ñaari yëf bi ci jëkk c'est purement professionnel dañu bëgg a seet tester fas yi pour que dorénavant l'ONAS di jël prise de pari sur les courses sénégalaises maanaam li ñuy fay PMU France parce que course française lañu la ñuy dawal fii la ñuy parier ñu koy def ci course sénégalaise yi comme ça dërëm bi bañ a génn gaal bi des ci beneen volet bi bi ci gën a am importance surtout waa CNG des courses hippiques dañu mun a marquer seen reconnaissance vis-à-vis du président de la République Macky Sall notre candidat suñu jàmbaar pourquoi parce que simplement politique bi muy mener pour l'élevage et pour la race chevaline en particulier moo tax ñu ne tey dañu organiser journée bi pour sargal ko pour woon ne ñoo ñoo ma ànd alors man maa ngi woon xam ngeen euh, man je suis de Matam maa ngi woon foofu di campagne mais biñ ma téléphoné dama bàyyi sama liggéey yëpp ñëw fii pour fekk si leen pour fekk si journée bi comme ni ko alpulaar di waxee yi di toon ne laa toon maanaam nga bëgg a dem fenn far ñu yónnee la fa far loolu moo ma moo tax ma kontaan ñëw fii fekk si gañ ñu magnifier journée bi ñu sargal président de la république ñu def appel pour que jépp wooteel ko parce que xam nañu ci euh, filière Ekine rek réalisation yi ñu ci def ñoom dinañ ko wax incha allah bu fa demee. ñëw naa fii nag fekk je crois je crois savoir que femme département Thiès ñoo fi nekk tey fekk ministre kontaan trop. pour woon leen ñoo ànd dinaa leen jox tout à l'heure 3 millions yi ma dimbalee jigéenu département bi pour que suñu campagne bi dem nu mu waree parce que dañu yàgg wax ne Thiès dañu yàgg wax ne dafa am lu fi nekk dafa am baobab naa loolu bu amoon loolu histoire la ku gis mbooloo mi tey xam na ne Thiès basculé na incha allah au soir du 24 février ñun ñëpp dinaa fi ñëwaat encore ñu feete victoire bi yóbbu suñu président de la république au palais ñu continuer waat programme bi commencé di maire Talla Sylla sama xarit démb jëm jot malheureusement jotuma ko pour wax ko événement bi pour wax ko yëgal ko waa autorité politique yëpp yu nekk Thiès parce que yëf yi combat bi benn la ñun ñëpp ñoo ko bokk fépp jàppale monsieur président de la République da jàppale xam naa ne Fouta yi suñ ko amee ay mbokk na ma ne yónnee nañ ko message bi message boobu rek laay transmettre également ak euh, mon ami également le président le vice président de l' assemblée nationale moom jokkoon nañu démb euh, Abdou Mbow mais newoon na ma tey dafa am benn programme bu chargé mais daan ya du ñàkk ah il est là il est là voilà d' accord donc voilà je vous remercie donc ñu ngi continuer dem à l'hippodrome en vous écoutant tout à l'heure li ngeen si def mooy ngeen préparer wu pour continuer li nga xam ni président moo ñu ko wax nee na responsable bu nekk militant bu nekk na dugg ci këroo kër waxtaan ak njaboot gi xamal leen li nga xam ni président de la république liggéey na ci juróom-ñaari at yi passé yaakaar naa weddi gis bokku ci fànn boo jël président de la république def na ci lu am solo fànn boo jël na donc bu ñu doon wax ay not président de la république aurait une note d'excellence 19 voire 20 sur 20 donc di leen wax ni instruction bi du dara lu dul ku nekk dem ci goxam liggéey amul leneen lu ñu laaj lu dul ku ci nekk dem ci goxam waxtaan ak mbokkam waxtaan ak ñi nga xam ni ànduñu ak ñun ñu wax li fi président liggéey gannaaw loolu président dafa ni nangeen ngeen ànd yéen booloo nekk benn ñun ñëpp nañu ànd booloo nekk benn amul clan bi ak clan bale ñun ñëpp li ñu bëgg mooy président de la république am ndam mooy Sénégal am ndam parce que émergence su Sénégal ñëpp xam nañu ni ki fi toog bu ñu ko mayee juróom juróomi at yeneen wóor na ma ni émergence bi ñu bëgg du àgg 2035 gannaaw bi suñu borom may ñu may ñu ñu am pétrole gëm naa ni loolu dina nekk la course la plus rapide pour arriver au finish donc di leen wax ni maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi nii di dem proximité ngeen jégal ma parce que dama amoon programme depuis bu ma sañoon damay yendoo yéen fii añ ak yéen fii mais dama amoon un programme déjà établi loolu moo tax maa ngi ñëw dem di leen wax ni gëm naa ni li ma gis ci département bi parce que wër naa goxoo gox ci biir département bi li ma gis ci département bi zone rurale ak li ma fi gis ci taax ñu dem zone est zone ouest zone noor engouement bi ma fi gis ànd bi ma fi gis buñ ci continuer yaakaar naa bu keroogee le 24 on aura gagné largement largement dans le département de Thiès l'appel le dernier appel mooy li nga xam ni ñu ngi koy dëgmal mooy la venue du président dimanche bu tey bu dellusee le 17. cette mobilisation Soxna Ndeye Tické elle est excellente je la je la voudrais au moins mille fois bu keroogee bu kenn manqué bu kenn feebar. nañu yàlla may ñu teewe ko accueillir président comme personne ne l'a fait au Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant. jàpp naa ne ki nga tax wala ki tax ñu ne dañuy xeex jàpp pour ñu far ko dès le premier tour je pense que loolu bu dee jigéen ñi rek je pense que ñoo ci war a njëkke parce que dañu ne bu ñuy gubali mbaam bu tan gore moo cay ëpp aw say ndax président de la république dafa jël jigéen ñi taxawu leen taxawaay bu am solo ku ne xam na ne jigéen moo yor kër te président de la république ba mu ñëwee 2012 ak léegi ceeb yokkul dëwlin yokkul suukar yokkul meew yokkul gaz li nga xam ne moom la ñuy toggee dafa wàññeeku ba pare li nga xamante nii moom mooy courant fuy kamat gi ñu amee woon te ku ne xam na ne boo amul courant jën yoo am mu yàqu yàqu tamit kenn waxaale wu donc jàpp naa ne ponk dafa taxawu jigéen beneen bi mooy li nga xamante nii mooy couverture maladie universelle bu ñuy wax zéro cinq ans xale yi lañ ko defal naam waaye pour jigéen ñi la parce que jigéen mooy dem di jur jigéen mooy yor xale ba mu am 5 ans parce que xale bu amee zéro ba 5 ans bàyyam mën naa ne mën naa toog ay at du ko gis waaye yaay mooy faj bu feebaree bu lum xewle yaay ji mooy jug donc ñooñu jàpp naa ne tey jii ñoo war a ci fal président de la république te yéen taxaw ngeen ci. beneen mbir bi mooy suñuy wax bourse de sécurité familiale les quatre-vingt pour cent wala quatre-vingt-dix pour cent jigéen ñi lañ koy wax. boo demee dans le monde rural dans le département bu ñuy wax PUDC maanaam piste de production yi mën naa ne jigéen ñi lañ ko defaral parce que góor ñëpp def nañ li ñu naan exode rural dem wuti lu ñu indi seen kër. su ñuy wax ay forage jigéen ñi lañ ko defal parce que dañ daan root ba sonn ci àll bi su ñuy wax électrification rurale jigéen ñi lañ ko defal parce que ñoo yar njaboot ci biir dëkk donc jàpp naa ne jigéenu Thiès ci ginnaaw Ndeye Tické taxaw ngeen taxawaay boo xamante nii bu président ñëwee le 17 dina war a taxawaay loolu nag li koy firndeel mooy le 17 ngeen mobiliser wu ànd ak jeunes yi ànd ak mag ànd ak jigéen dem fi nga xamante ne nii mooy promenade de Thiès soit président de la république bu ñëwee ki fi demoon meeting national bu ñu defee meeting départemental moo xam ne dëkk bi dafay war a topp te loolu nag lii mooy mébét bi ndax président dama leen di wax ne dafa am bilan am programme xam nga kuy liñ naan ku koy mën ak ku koy jéem bokkul président dafa am bilan wax naa leen léegi ci problème social boo demee ci infrastructure yi ici à Thiès depuis 2004 ñi ngi jooy stade ndaw Thiès kenn amul foofu fubale tey bu ñu demee bañ naan prochain match su Sénégal mën na am ñu fubale ko Thiès fierté la pour Thiès te loolu président de la république moo ko def maa ngi nuyu lat li ki nga xam ne mooy docteur Ndiaye ñëpp xam ko ci social muy xaritu jigéen ñi nekk ici le mandataire au niveau de l'ouest di wax ne docteur mën ngaa avancé toog sama place ndax su ma waxee man day tike libéré na maa ngi toogoon ci wetu ndey tike donc di wax ne li nga xam ne moom mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne yeneen koy def ñëpp gis nañ ko en tout cas man de liñ naan gongo man moom jigéenu Thiès nee naa gongo ndax taxaw ngeen maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam. waaye man dama ñëw ci sama turu bopp ndax li ñu bokk ak li ñu seq waaye dama ñëw tam ci turu comité électoral zone nord bi nga xam ni sa jigéen sa xarit seen bu njigéen moo ko jiite. moom ñoom ñëpp ñu nekk yeneen activité ñu désigné ma man xamoon ni dinaa ñëw wuyu la ñu désigné ma pour ma ñëw ci seen tour wax la ni waa zone nord ñu ngi rafetlu taxawaay bi jigéen ñi mën a ñëw yëpp ñu ngi ànd nañ ñëw ñu ngi ci tribune bi ñu ngi ci ñu yi ñuy rafetlu initiative de mobilisation bi am na solo ci temps de campagne électorale dana permettre ñu gën a xamante gën a saafonte gën a wéccante ay xalaat ci noonu la war a gën a defaraat suñu taxawaay lu tax taxaw defaraat suñu taxawaay am solo ci biir Thiès gii l'honorable député Abdou Mbow wax na ci lu am solo Maodo Malick wax na ci lu am solo bilan président Macky Sall bu ñu toogoon fii di ko wax du am njëriñ te man mën naa xam lu tax bilan bi rëy na rëyaay boo xam ni buñ ci waxee tam duñ ko jeexal te buñ ko jeexalul duñ ci yóbbu lépp bilan bi. bés bu nekk ku ci nekk fa nga dëkk am na loo ca ñam soit nga gis ko teg ci sa bët wala nga dund ko ci sa yaram je pense que li ñuy wax ci la question la stabilisation des prix est quelque chose d'invéridique bi buñ koy wax boo dégloo président caravane bi mu def di wër Sénégal fu mu dem lu tax nit ñi topp ko ñooñu dañoo yëg seen bopp ci la nga xam ni moom la def ci juróom-ñaari at yi nga yàlla dénkee réew mi bilan président Macky Sall mu ngi koy waxal boppam ñu koy dégg ci rajo yi di ko dégg ci télévision yi bu def différence lool ak li muy wax ak ñeent ñi nga xam ñoo toog ci gannaaw di lu mu wax ñu sepp ca xool lu ñu ko wëlbatee ni ñoom tam loolu lañ nar a def moo tax sëriñ président Macky Sall bu demoon ci meeting wala mu dem ci benn dëkk toog waxu fa dara nuyu nit ñi dem candidat yi toog ca gannaaw bu ñëwee lu ñu am lu ñu wax parce que moom la ñuy déglu mu wax ñu seet ñu soppali la mu wax jéem ko tourné neneen ñu loolu mooy seen programme looloo waral looloo waral ñu ñëw ba fii ñu wax waxi bilan dañuy wax simplement ni nga xam ni moom la ñu war a taxawee monsieur le coordonnateur départemental joxe na ay message man dama bëgg a seppi ñaari message rek wax ko président Macky Sall dafa ni ñu campagne bi particulièrement na ñëpp def proximité ma bëgg ñu partager benn stratégie proximité du dem seeti ki nga xam ni sa mbokk la mu wóor la ni voter na la Macky Sall ba noppi mu wóor la ni jox na la carte bi ba noppi wala mu wóor la ni boo koy seeti mu nga sol casquette Macky Sall wala taf photo Macky Sall wala sol mbubb Macky Sall campagne bi ñu war ñun ci Thiès mooy seet yi nga xam ñooy suñu ennemi irréductible ñu dugg seen kër seeti leen wax leen leneen juróom-ñaari at ñu ko toog di perte temps juróom-ñaari at ñu ko toog di perte temps di topp ñoo xam ni amaluñ leen njëriñ amaluñ njëriñ Cees lañu war a def mooy changer suñu toogaay damay faral di wax ci biir procédure yi may def Cees benn président la opposé wul muy président Senghor Abdou Diouf dafa ñëw ko opposé ak moom Abdoulaye Wade ñëw ko opposé ak moom Macky Sall ñëw ku bëgg di continuer di opposé moom ma ne leen 2012 Macky commune de Thiès gagné élection locale yi élection locale ñëw président Macky Sall fépp foo dem ci Sénégal département yëpp commune yëpp presque raafale na ko sauf commune de Thiès référendum ñëw muy wut le oui pour le non département bay gagné Thiès commune gagnewul législative yi ñëw département moo ñu yóbbaale Thiès commune gagnewul 24 février ci mbaaxu yàlla incha allah dana gagné dina nekkaat deuxième président de la république deuxième mandat may ñaan waa Thiès ma ne leen sama noonu nag man du ma topp faralu ma di ma galgal may xëy di dëkk di ko toppatoo rek am na fu toppatoo yem bu gañee élection yi dafay demal boppam tabax réew mee ko tax a jóg tabax na programme bu mucc ay boo xam ni ci juróomi at yi di ñëw bu ca paree Sénégal du nekk sur la voie de l' émergence dafay émergent te man su ma ko waxee ma donc Thiès commune nañu préparer di jox Macky Sall la victoire pour que émergence boobu di ñëw ci juróomi at yi ñu bokk ci sinon bu ñu largee suñuy bët rek ñuy dese wasalaam. di jël nag kàddu bi ci turu jigéen ñi nekk ci commune bu Thiès di leen ko santé di leen ko gërëmee ndaxte comme li ma am habitude di ko wax rek dama naan alhamdulilah bi ñu sunu borom boolee. ak président bu mel ni son excellence monsieur Macky di nit koo xamante ne dafa am yërmande ci askanam am yërmande tamit ci ñun ñii jigéen ñi yàgg ñoo taxawu nag taxawu taxawuñu fu ne bu financement yi génnee ñun jigéen ñi lañ ciy dégg depuis ci jamonoy Moustapha Diop ba Ndeye Saly Diop Dieng ñëw financement bu fi génn ñun jigéen ñi am nañ suñu wàll ba tey jii lii mujjee ñëw rek muy DER gis na ci suñu bopp bu baax a baax wutal ñu aussi ay formation ñun jigéen ñi ndax tamit nit boo ko defalul amul formation boo ko financé xaalis du xam fu mu koy dugal ndax loolu dafee bari woon nit ñi dañ leen femmes yi dañ leen daan jox xaalis du xam nan lañ koy utiliser mu boole ñu ak 3FPT muy topp jigéen ñi leen defal ay formation yu mucc ay kon yaakaar naa ne suñu amee nit ku mel noonu di bàyyi xel ñëpp rawatina ñun ñi jigéen ñi ndax xam na ne élection yi jigéen ñi la ak jeunes yi te ku ci nekk jox na la li nga war a moom li nga war a am jox na la ko kon yaakaar naa ne kooku dese la tuñ ko dara lenn rek laay wax ci bilan maanaam jàmm ji ñu am stabilité bi am ci dëkk bi loolu rek bilan la ndax durant sept yi ñu toog fii yëpp Sénégal jàmm moo fi am fitna amu fi tey lii ñuy def ci jàmm la bokk ndax bu réew mi amul woon jàmm du ñu am fitu taxaw fii nan dañuy wax askan bi kon yaakaar naa ne lool rek doy na bilan président Macky Sall waxantuma laa nag li nga xamante ne nag foo ko làmb rek daj ko surtout fii ñun Thiès gis nañ lim ñu fi defal suñu université yaa ngi nii ISEP mi ngi nii autant suñu doom yi dañ daan am bac rawatina nag jigéen ñi da jaaxle ndax dañu war a génn ñi ñu yóbbu leen Ziguinchor wala ñu dem Saint-Louis wala Dakar waaye léegi dañuy ñëw jàng ci sa wet di wàcc di ñibbi si kër yi ngay xam ci lu ñu lekk kon loolu yaakaar naa ne sant yàlla la jàppale ñu tamit ci yu bëree baree bëri couverture maladie universelle suñu sœur Safiatou wax na ko loolu duma ci ñëwaat ñu ñëw Thiès ñu amoon vieille doléance mu ñëw xam ne ni mu koy saafara pour appuyer les collectivités locales mu indi fi Promoville yaakaar naa ne Thiès mbedd yu bëri defar nañ ko Cité Lamy depuis 60 ba léegi goudron mosu faa dugg te tey dugal na ko fa nga ñëw fii Sofraco dugg na fa kon yaakaar naa ne kooku bàyyi nañu xel ñun waa Thiès ñun ñoo ko deseel mu booleetuñu fii ak euh, waa banque mondiale ñu war a ñëw jàppalee ñu 9 milliards te loolu fan yëpp monsieur le maire de la ville taala ci yooyu la nekk pour lépp Thiès avancé Thiès jëm kanam kon kooku bàyyi nañu xel te xoolul ndax élection dina gañ a xoolul ndax du ko gañe ndax xam na ne ñëpp moo ñu bokk njabootee waaye dafa am loo xamante ne ñun ñoo ko war a def alhamdulilah nag élection yi soobee yàlla gañe na ko ba pare mais ñun waa Thiès dañee war a bokk ci victoire am boobu ndax xoolul luñ ko defal du tee lépp lu mu waraloon ñun rek mi koy def kon nag ñun waa Thiès damay ñaan ñu gën a laxasaayu surtout ñun jigéen ñi takk suñuy ndigg def porte à porte wax li mu fi def ndax moom ku neex a liggéeyal la xale bu ndaw bi sax boo ko wooy mu wax li fi président def kon yaakaar naa ne ko am candidat bu mel noonu am programme am bilan am yéene ci askanam def na ñëpp tekki seen bët muy laajaat pour àggale kon yaakaar naa ne kooku waruñu ko tëkkaleeg ñi nga xamante ne defaguñ fi dara di wër di yàq deru président rek lañ fi nekke amuñu programme amuñu dara mosoo leen a dégg ba ñu commencé campagne ba léegi ñu ne bu ñu falee dinañ fi def lii wala dinañ fi def laa mosoo leen koo dégg dañuy wër rek. di di attaqué président di attaqué ñi ànd président di liggéey te yaakaar naa ne waruñu leen a fekk ci siège boobu nañu défendre suñu programme président ak bilan maa leen di sant di leen gërëm merci mais l' essentiel mooy li ñu leen doon doyee tey du meeting Diop wax na ko sant tey du meeting tey bisu capacitation la maanaam capacitation mooy. dañu gis jigéen ñi ñu ngi ci terrain bi ñu ngi dugg ci kër yi ñu wax ak nit ñi mais bi campagne électorale communication bi évoluer parce que damay wax ni bu ngeen di seet un mois avant président mi ngi inauguré mi ngi wax ci bilan bi mi ngi wax ci réalisation yi bi ñu commencé campagne ba léegi ni ko mon jeune frère Abdou Mbow waxee léegi. ñu ngi wax ci réalisation yi maintenant doon politique nag day am maanaam politique la def te dañu gis ni ligne de départ bi ñu amoon parce que bi ñuy départ dañu ni am nañu cinq candidats ñun ñu war a ci jàkkaarloo quatre candidats quatre candidats yooyu mu am ku ci dëkk Thiès parce que politique ku fekkoon yi daf ñu woon. c'est le réel avant d'être l'idéal le mooy li ngay gis nii li ni jonn sa kanam taxaw nga xam ni lii la lii la mooy ki ñu bokkal Cees xelam dalatul woon bareetul woon yaakaar mais am na tey coalition bu ñëw di ko jàppale coalition boobu ñu ci ëpp dañu dem ci parenage baax rewuñu donc waruñu ñu tiital mais am na yaakaar ju mu amul te yaakaar jooju mu ngi commencé judd ci boppam mu commencé am fit donc ñun bu fekkente ni dañu bokk ak moom dëkk war nañu daje suñu pilier maanaam ñi nga xamante ni ñoo ñuy taxaw muy jigéen ñi ñaax leen ni bilan bi baax na bilan bi baax na bilan bi kenn weranteetu ko bilan bi ñi ñu jàkkaarloo ci opposition bi sax. weddi ko man damay wax ni waxu bilan ci président jaratul ñu di ko wax parce que ki nga jàkkaar loolu weddi ko sénégalais yi weddi ko donc ñun suñu taxawaayu politique la ñu bëgg échanger ci ak yéen dafa am kàddu yi nga xamante ni dañ leen di ñaan ngeen bàyyi ko léegi parce que looloo ñu tax a jóg mooy ñu wax ak yéen ci wàllu kàddu yi soxlaatul ñuy wax par exemple ki fi nekk. ki fi nekkoon soxlawul ñuy ñëw naa def fi dara parce que def fi dara moom leer na nañu seet ñun suñu candidat li nga xamante ni jëmee na ko ci dëkk bi indi na ko ci dëkk bi fan la ñu jëmee ak lan lañu ñu yaakaaroon war na ko mën a am ak fan lañu ñu jëmee ñu am ci taxawaay bi donc ma leen di wax ni leen il faut ñu moytu yenn wax xam nga mën nga dugg ci kër. fekk fa ko am bourse familiale mais moom bourse familiale pour moom état rek moo koy joxe nga taxaw ni ko yéen da ngeen ñàkk jom bu ngeen amoon jom voté Macky Sall il te dit du ma voté Macky Sall loo ma mën a dafa am façon wax yi nga xamante ni dañ ko war a éviter waxuma ni da ngeen koy wax mais comme nit boo koy yedd astafurlah boo koy xelal parce que mag kenn du ko yedd boo koy xelal doo xalaat li mu def ci lu baax da ngay seet li nga xamante ni mën na ko def ci njumte nga wax ci ak moom kon li ngeen di wax mooy Macky Sall commencé na du ngeen dugg fenn fu ñu leen deful li ñu war a wax mooy fan la jëmee askan wi lan moo nar am ci kanam lan Thiès fan la jëm Thiès li fi nekk matutu la werante lépp lu baax lu fi am gis nañu ni bu touché askan wi Macky Sall la ko def donc fu ngeen dugg déglu leen nit ñi d'abord problème bi mooy il faut nga dugg ci kër di nga déglu la na xari nag parce que di nga dégg ndaw si nit ñi la ñun Macky Sall xamuñu ko mosu fi ñëw defaluñu dara nga ni ko toogal bu toogee nga seet xam nga bi ma ni bilan bi jarul wax effectivement dañ wax ci bilan bi mais bugguma bilan yu yu yu large yi nga naan PUDC yooyu baax na comme je dis lu am la mais politiquement lan lañ la war a wax bu ngeen dégloo nit ki parce que nit dina la bañ a compte mais di nga ñëw la man ànduma ak Macky Sall di la seetlu wala sax mun la ànduma ak Macky Sall wax loolu la xarit da ngay jël temps déglu ko da jël temps wax ko ni ko ñun waa Thiès waxatuñu bilan ak réalisation nationale Macky Sall lan la leen digoon ak lan la def nga bind ko li ñu digoon mooy premier bi mooy ndox mi amoon nañu problème ndox comme ni ko honorable député waxee léegi ñu wax ci ndox mi boo ci jógee nga wax ko Macky Sall tey bu jàllaatee lan mooy mën a am ci kanam parce que gis nañu nii aéroport de Diass mi ngi fi aéroport de Diass war na mën a indi lu mu gàtt gàtt cinquante mille à cent vingt mille emplois am na industrie yu bari am na hôtel yu bari yi nga xamante ni ñi ngi bëgg a dugg fii Thiès teg fi ubbeeku fii te buñ fi ubbeekoo loolu njëriñ la pour askan bi boo ko dégloo mu ni la par exemple président li mu def tabaxul wala tabaxul lycée il faut ngeen wax leen ñi leen problème bi am Thiès te loolu nag maire yi la incombé mooy place bu ñu tabax moo amatul Thiès place yi fi am yépp suuf si ni ñu ko doxalee ku ne xam na ko damay wax ci wàllu commune bi parce que département bi dina ma jaaxal bu dee mën nañu dab avance bi nga xamante ni am na ko ci beneen élément bi mooy fu ngeen bu leen ko teg ci kii daf maa mere wala kii de dama koo romb nuyu ko di ngeen dégg lépp dina am ku la ni par exemple man day ticket romb na ma nuyu par exemple ñu ñëw di ko wax mun la non du ma wootee Macky Sall je donne un parce que ma romb nuyu ma nga nga ak moom li ngeen di gën a ñaaxee mooy déglu bi d'abord mooy ngeen nangu lu leen naqari maintenant nag li ma leen di yokkee. mooy politique bu leen def comme li ñuy wax ci politicien naan politicien day ñàkk jom bu leen jël côté boobu parce que ñàkk jom ji mooy luñ la wax rek baax na luñ la ni mën nga koo def nga ni dinaa ko def bu leen diggee dara li nga xamante ni ëllëg du ngeen ko mën a dox ba mu ñëw ci seen askan li ma ni bu leen nangu lépp parce que nangu lépp mooy di nekk luñ la wax rek nga ni waaw nit day am lu bañ te li ngay bañ ci wàllu politique di ko wan ci sa wàllu diine di ko bañ ci sa famille bu politique tax nga di ko nangu bul nag wax wax ju naqari bu kenn dégg ngeen wax wax bu naqari bu kenn dégg ñu jël seen turu leader bind ko ci muru kër jàmbur parce que loolu day tax nit ñi gë boo fekkee pouvoir xam nga am na ñuy mën a def 2012 c'est pas grave.

daf lay teg ci sa jikko wala ci sa xam-xam wala ci sa ci sa doxalin loo mënul dindi donc ñun li ngeen di ñaaxee une fois encore mooy jëm nañ ci élection yu am solo jëm nañ ci élection yi nga xamante ni jigéen ñi ak ndaw yi ñoo koy gagné jëm nañ ci élection yi nga xamante ni taxawaay bii ngeen ci am nga xamante ni wóor na ma ni fay ñu kenn pour mu ñëw fii. te bi ngeen ñëwee ci suba ba léegi yéen a ngi toog te bu ngeen ci jógee yéen a jëm ci leneen li nga xamante ni lépp lu dolli suñu candidat la kon ci élément de langage yi li ngeen di wax mooy ngeen wax ak nit ñi ci li nga xamante président de la république jëmeen yéene na ko Thiès ci yokk école yi ci yokk poste de santé ci yokk lycée ci université yi nga xamante ni def na ko fi mu jëmmal ko ba mu nekk li nga xamante ni day nekk njëriñu ndaw ñi ci lépp lu nga xamante ni président am na ko ci yéene donc je pense que mbir mi bi ko Ndeye Tické di nas ak les femmes du département may nuyu honorable député Ndeye Fall dañu ni woon dañuy ñëw rek pour waxtaan ak yéen li ngeen defagum ba léegi évaluer nañ ko baax na macha allah parce que du ñu am koñ bu ñu dugg bi nga xamante ne duñ ñi ay nitu Macky Sall ñu ngi fiy leneen li am solo rek mooy li ma leen wax ngeen déglu li leen neex ak li leen naqari bañ répondre ci provocation te bañ a wax nit ki parce que Sénégal dañu xeet wax da wax nit benn wax ci mbooloo walla nga wax ci biir nit. nga rey ko te yëgoo ni rey nga ko parce que wax dafa metti déglu dafa metti mais déglu leen te bu ngeen di wax ngeen seet wax ju tegginu ji nga xamante ni di ngeen ko wax ñi ngeen jàkkaarlool ba nga xamante ni dinañ mën a ànd ak yéen nit fi may terminé mooy dina la contre mais dina am sa sax wan na leen ni contre naa la parce que di gis ci koñ nit contre nit. ni man de Sofeetu Caam mii même bu ko contré rus naa ko koo wan mais kooku am na kersa bu mu la joxee liggéeyal rek moom ñëwal déglu ko waxtaan ak moom bañ ko def xuloowu marché wala xuloo bi nga xamante ni waxtu ñaaw rek lañuy ñuy waxante am nañu yaakaar ni bu ngeen doxalee noonu li ci kanam rawul bët te une fois encore ñun dañ leen koy wax président Macky Sall bu doonte ni day wax dëkk bu mu gañe gañewul du fa def daal kon du def dara Thiès parce que en 2012 7 pour cent rek la amoon te terewul cité Lamy duma ma dëkk laay jël exemple ñaari tali dugg na fa ci mbaaxam te ñaari tali yooyu ñu dund nañu 50 ans courant la ñu musa am ak ndox te courant boobu Jean Collin moo ñu ko joxoon ndox mi Abdou Diouf moo ñu ko joxoon donc kooku am na yéene bu mu am ci askan wi en tout cas ñi ngi sant di gërëm ñëpp. di leen wax di leen ñi ngi seen ginnaaw on vous encourage on vous félicite asalaamaaleykum wa rahmatulah